asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey ñu ngi ñëw seet si un champion boo xamante ni mun naan ci duggee ci làmb rek xel yi dem ci Mohamed Ndao Tyson à travers corpulence am ak masse musculaire am doon aussi ndaanaan boo xamante ni tey buñ tuddee làmb Grand Yoff rek xel yi day dem ci moom parce que nekk na ko xamante ne à chaque fois fu munti dem day manifester tey sa fierté d'être un fils de Grand Yoff day faral di ko wax ni moom fier na nekk doomu Grand Yoff te fi mi ngi juddoo fi nga xamante ne mooy arafaat capital Grand Yoff tey ñu ngi seet si le grand champion mobile numéro 2 bu Grand Yoff ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a xuus si waxtaan bi champion. leen di nuyu di leen fay di nuyu waa yëpp di nuyu amateuru làmb yëpp waaw ñu présenté dem nañ la demee dañuy wax mobile doomu Grand Yoff juddoo Arafat màggee seen sala waaw ci digg capital bi lañ juddoo fi lañ yoroo fi lañ màggee. ah di rafetlu seen jóge géejawaay nag ñëw ba fii Grand Yoff ñu fas yéene waxtaan ci làmb incha allah. Euh, am na solo alors tey boo ma doon tënkal lekk euh, carrière bi lan nga may waaw bu ñu tënkal carrière bi dañuy sant yàlla bu baax suñu carrière depuis début ba fii ñu toll. waaw parce que li tax ñu si sant yàlla mun nañ ne palmarès bi demeewul noonu mais sant yàlla gi mooy dafa am suñuy morom yu ñu débuté loolu ci làmb te booboog léegi bi ñu déparé ba fi ñu toll te yaakaar naa ñi ma jógandool ci làmb du sama njàmbaar du seen yaafus mais yaakaar naa ñi ma bokkal carrière déclenchement yëpp tey ma lañ ciy tudd ci làmb ba fi ñu toll amaana nag du sama njàmbaar du seen yaafus ndimbal suñu borom la parce que bu ñu waxee man ñan laa débuté ndool dañuy wax loo sóod bu yaraax Pape Camberène ay Kaaw Cissé kon tey mun naa sant yàlla si sama ak nu carrière bi mën a demee quoi parce que ba tey làmb ak mayu am na solo comme ni nga ko waxee rek parce que bu ñu xoolee dafa mel ni succès bi dafa dafa jéggi talent bi parfois dañuy wax loolu bu ñu xoolee mobile par tour bi mu am euh, mën nañ ni palmarès bi demeewul noonu wala euh, carrière bi accusé na benn retard yan jàngat nga def ci loolu. waaw loolu sant yàlla la succès bi suñu borom moo koy def mën nañ ne sax ñun gisuñu loolu noonu amaana doomu aadama yi ñoo lay acquérir seen bopp noo xamante ne yow day weesu sa dimension mais ñun gisuñu loolu ah carrière bi nag ni muy demee mooy li may wax chaque jour rek xëy na suñu borom la. parce que nit bu jéggi destin waaye li nekk si ñun jàmbaar gi nekk si ñun sañ-sañ bi nekk si ñun bëre bi nekk si ñun waneeguñ ko te am nañu gëm-gëm ne dinañ ko tàmbalee wane ci saison yi ñu nekk jëm yi ci kaw incha allah. Euh, nga nekk également tey bi ñu defee suñuy gëstu donc def aussi ay euh, ay recherche nga nekk également doom ci ko xam te mun mën naan avocat bu siiw la ci dëkk bi waaw mën naa xam tey nan nga duggee ci làmb parce que loolu doon loo xam te tey nit ñi ngi ci posé ay loolu day yéem ñu bëri day yéem ñu bëri parce que boo waxee mobile ñu ne doomu maître Ousmane Seye l' avocat de l' état moom muy yëngu ci làmb day xaw a yéem ñu bëri waaye ñun nag suñu papa fitnaalu ñu amaana làmb ñun féete woon bi ñu nekk xale nekk ak moom ñun ñu ngi woon nekkee côté Arafat bi la dëgër 1 dëkkee woon foofu noonu ñu nekkoon fi koñ bi ñuy wax koñu waalo di ko fooyee la dëgër 1 daan fa tëgg ay mbapat balaa mbëri di ñëw ñu ñooy nekk ci biir géew bi di bërentu bu mbëri ñëwee ñu génnee ñu bu mbapat bi jeexee ku jël final bi yuuxoo yi tamit xale yi daw songowaat ñooy nekkaat foofu di bëre xam loolu tamit la ñu amul bi duggee ñu demoon nag ba bu doon dem entraînement ñu ko doon topp di dem ba géejawaay ba suñu carrière sax boo xoolee débuté bi ñu ngi ko débuté géejawaay lépp fa lañ ko defee écrit waalo nekkoon fa ak suñuy grand yu mel ne ñoom Alioune Seye numéro 2 ñu dalal ñu ñoom Ino Dioni xam nga grand maam bu liiru jaan affaire yooyu doon di leen nuyuwaale en passant ñoom ñëpp surtout Alioune Seye 2 quoi mais la demee d'habitude donc comme kilifa yu mel noonu ñoom li ñuy privilégié mooy njàng mi kon li muy wan rek c'était pas facile nga convaincre ko ba dugg ci li nga xamante ne mooy làmb naka la demee ba nga convaincre ko ba mun a focaliser wu ci làmb waaw moom nag loolu la gën a gis si ñun jàng la gënoon bëgg parce que man ba nii sax sama mag day jàng sama mag ba nii mi ngi jàng mais moom moom daa am ñaari doom yoo xam ne ay nattoom lañ muy man ak sama rakk muy bébé dañu a bëgg affaire sport man sama rakk boo xoolee mi ngi doon am ak ànd ak ñoom Modou Lo di dem di ànd ak ñoom làmb boo teel a nattu par la suite moom ci la féete Canada kon ne di def judo rugby affaire yooyu man ma féete woon nekk côté Sénégal fii ci paa bi mais tamit ci làmb laa doon yëngu mais tamit li mu gënoon bañ ci àdduna mosuñu si nekk mooy jël lu ñu moomul wala wax lu ñu xamul wax lu dul dëgg wala tux yàlla dimbale mu mosu si nekk lépp lu luñ mën a nekk nag te mu xool ko xam ne suñu bëgg-bëgg la te nekkuñu si ay caaxaan tamit mos see dimbale ba ci lii ñu nekk nii mu ngi ciy dimbale bu baax baax a baax mais gënalu ko woon di ko gënoon mooy ñu jàng nekk ci beneen niveau parce que kër gi yëpp ci euh, bëree daal di pare ñibbi si moom mu am fierté ci ci combat nu mu déroulé woo mos na am wala mosul am. waaw ba nii ba bu may bëre sax buñ mu suba la moom laay gën a nekkal guddi gi ñu toog di waxtaan mu naan man nii maa la ëpp fit man bi may toll comme yow sama morom nii daaw ba lii moom day seetaan bëri quoi parce que mbër yu bëri tamit ay xaritam lañ. dañ benn complicité seen biir. waaw suñu partenaire la <laughs> bu egg si woon léegi nga xam ne day fëgg bunt bi ñëw grillé émission bi mu <laughs> jël kàddu suñu xarit la quoi. alors ma def benn constat tey bu ñu xoolee mobile comme ni ko léegi doon nit koo xam te ne dafa am kàllaam macha allah mën a wax mais su ma xoolee say combat damay gis ñaari visage muy avant combat à travers communication ba ci sa combat ak soq doy na ci dañ naan mobile bu ñëwee tey adversaire bu taxaw ak moom mais boo ñëwee tamit biir l'enceinte bi dañuy gis beneen xar kanam duñ la xàmmee lan mooy problème waaw làmb noonu lay doxee damay wax chaque jour man làmb dama ciy signé ak sama nawle muy promoteur ak adversaire promoteur bi jël benn alalam investir ko si ñun bëgg ci benn visibilité bi bëgg ci benn promo bi après ñu doog a dem làmb ji mu soxla ci recette am diiran bi ñu signé mu ciy bëgg visibilité ak promoteur promo bi yëpp lépp lu ci war dama koy dox buñ ñëwee làmb bi wut recette lépp lu ci war dama koy def parce que mosuma bëri làmb mu yaraax mooy man damay wax làmb lépp li nga xamante ne mbër mi moo ko ci moom chargé wu ko di ko def kenn du ñëw stade ne mobile manqué na ko di suñu borom moom nag jëfi suñu borom la te chaque jour combat yi ñuy gisi man yeneen visage yi ma perte ko yëpp noonu la war a demee parce que njàmbaar buñ ko gisee gis xare badar gis lépp gis yëfi ndaanaan mooy bis boo warul ñàkk mais boo waree ñàkk rek cuune ngay doon te boo waree doon cuune nag visage cuune mooy am ci géew bi man maa bëri ak leer maa bëreeg Kara bu ñu xooloon ci ñaari bu ñu xooloon ci làmb yooyu noonu ak man ak ñoom doomu waalo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ko doon wax duñ fi jóge buñ gisaatee ak combat yi nga bëre ñàkk ko dañ naan visage lan la demee mais làmb noonu la sport la mais chaque jour li paa bi di wax mooy li say morom nekk ñu koy liggéey fexeel ba boo ci nekkee bu mbooloo mi dajee bu ñuy wax diw nañ na ñoom mobile la ngi ne. waaw ah, parce que boo gisee mooy xaw a appesantir foofu tuuti c'est que TFP bi nit ñi dañ la doon xaar. à travers communication bu ñu xoolee bind bi corfilage bi macha allah comme ni ko waxee sànq euh, xel yi day dem ci Mouhamed Ndao Tyson mais anam bi nga ñàkkee ñaari làmb yooyu muy sa digganteeg Ramdan sa digganteeg Sokh gars yi dañu jàpp ne dafa xaw a yomb xam nga yow yaa ñu mën a décortiquer euh, yan enseignement nga ci tiré. waaw combat nu ma ko ñàkkee bett nañu bëri bett na amateur yëpp mooy li may wax comme li nga ko waxee bi ma duggee ci kalaaf bi la fekk amateur yëpp toog di boo waxee mobile ñii ne mooy favori mobile ñii ne bu kalaaf bi neexee mais amateurs yi saxaluñ leen lem te waruñu di leen fay lan lañ leen wan ba kalaaf bi taxaw ma nekk seeg samay nawle sutoo ci kenn ëppoo ci kenn ñëpp na yaay favori bi loolu leen won kon xam nañ li nekk si ñun mais nag bu ñàkk ñëwee noonu rek lay mën a demee dañuy ñaan yàlla li ñuy séentu si ñun yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar tas nag waxuñ si TP bi ñu jógee jóge nañ si bëri nañ si tiré nañ si ay leçons perte nañ si ay combats yoo xam ne xam nañ ne perte bi ñu ko perte moo nekk ci làmb ba tey moo mais sant yàlla mun nañ ko jàppee lu bokk suñu carrière mais ñun xam nañ ñooy ñan ñu ñu dëkkal xam nañ ñooy ñan du jàmbaar di maye wala fit di ko maye wala sañsañ sañ wala mën a bëre ah suñu borom ay ñëw ñu ñàkk ko de. dégg gi foo ko jëlee mobile ci mën a yëngal gi mobile ci mën a fecc gi boo dugg see rek amateur yëpp jug taxaw donc dañ la ci entraîné wala daa doon loo am te yàgg na ci yow. waaw dama koy faral di wax man Saala Ngoone yu ko faali Yaasin mooy sama maam man wéy laa juróom-ñaari yoon man day neex bu ma bëree day neex. Grand rêve laa dëkk lépp la am culture sport traditionnel tout ba pare dañ fi juddoo foowee fi yaroo fi màggee fi ñun bu ñu defee dafa war a neex ndax xaadim fay moo may jiñ géwél ndaalaan fay abdou ngaari mi ci néegu siin bàyyi laay ka touba koo fay ak ali jéen man bu ma feccee day neex de damay ñëw estade toog estade bi fees del ma toog di seetaan barki démb ci mujj ma toog fi ma toog ma ne amateur yi làmb daa manqué ñaar benn paa geesu ne ma kan ak kan ko duudu yaakate ak mobile 2 amateur yi 17h la ñuy ñëw stade toog di xaar combat buy dem 20h dafa am lu leen war a téye stade ba seen xel du nekk kër ga maay wax ak de. su ma la déggee Doudou Yakati ak Mobile nga tojal ma ko mu leer parce que comprendre ma foofu. waa bu ma ne Doudou Yakati ak Mobile 2 mooy làmb dañ koy mën mën ko mooy da ngay fexe ba xàmmee làmbi amateur ak làmbi supporter man bu ma dugg say stade sama bis ma xool tribune amateur bi ak loose bi damay xam ne làmb ji tey làmbu amateur yi wala làmbu supporter bu ci nekk xam naa nu ma koy dut sek da daan dugg ci stade tok xamne tay li lambi supporter la mu woy mbeuri dekk ci banlieue bi manam mën na baña woy ñi bari ci bis bi mais day xol mbeuri magi yi nekk ci banlieue bi mu woy len parce que ñoo ñoo mom lambi supporter mu woy ama fi woy cité fi woy fi ball gay fi mbooloo loy lambi supporter mu dugg ci xol xamne ne lambi amateur la mu yew lamb ci si woyu cosaan ko ben rythme bu nako woy ba lamb ci jeex bo xamul lool rek xamugo lamb moo tax ñun bu ñu dugg ci lamb rek day neex ak loñu mëna jappal bu ñu dugg ci di nga fexé fekkee dara ci ñun ba pare kenn bëggul rate suñu lépp. muy lan ah <laughs> xaw ma de. am na ñuy xaar simmeeku ma daw dogali am na ñuy xaar ma xëcc saamit am na ñoo xam ne dañuy dugg ci stade ma tuus ñu génn dem ñibbi ah. waaw wax nga lu am solo sax mooy summeeku bi nga wax lii parce que tamit euh, bu ñu xoolee mobile su dugg see ñëpp dañ naan liggéey na musculature macha allah tey bu ñu xoolee sa doyo tey war nga mën a ub làmb waaw bu ñu xoolee suñu doyo war nañ mën a ub làmb mais loolu tey lañ ko gën a gëm tey lañ gën a gëm ne làmb ba fu muy suñu loxo tey la ñu gën a gëm ne Grand Yoff li ñuy xaar ci làmb suñu jëmm ji moo leen koy jox di ñaanal nag ñëpp ñu topp suñu ginnaaw ñu ñëw mais gëm nañ li Grand Yoff di xaar ci làmb ñun nañ leen ko jox am nañ ko am nañ doole bi am nañ bëre bi am nañ fit bi billaahi wallaahi wa taala yàlla nag mooy dogalee ay mbiram nu ko neex mais lépp luy maye ndam ci làmb bu ñuy ñëw esaat dañ koy inti bu ñëwee esaat taxaw suñuy supporteurs du ñu xool suñu adversaire bi am dara lu ñu bàyyi xel ci moom dinañ entraîner li ci war dinañ ñaan lu ci war dinañ def li ci war lepp ñoo taxaw li ci def nak suñu borom ko moom mais dama ne lamb amna ben dynamique bo ci tollu boy wax nit ñi dañuy yaxan da nga leen di tax dootu ko sax jaar da ngay tok rek xaar yalla mais billahi wallahi wa taala daanaan lañ ci lépp foofu la la la laa ñëwoon ak yow sank parce que ñu bëri dañ dañ naan mëna wax lamine bee neex dañ japp li sañ-sañ bi deug dess na wa mëna wax mëna wax dañ ci sante yalla ñun ay doomu avocat lañ avant tout mais mun a wax gi tamit benn côté daf da ciy am solo xam la moo tax ay doomu aadama ñoo lay déglu yor seen connexion te li gën a gaaw ci connexion mooy YouTube te li ñuy wax YouTube lay jàll toog di la déglu nga bëgg nekk ci internet bi bu la journaliste bi posé lii nga wax beneen palmarès bu 10 minutes ñëw doog a tontu question bi ñu la wax wala ngay wax leneen loo xam ne émission bi nekkul foofu noonu xam nga ak di wax di màttu di xulleeku ñu naan noo kii ak a ñeme kii ak a lii foofu ak ñeme dañoo sore bi may bëree ba fii ñu toll dama ne ko musa a seetaan ci làmb mbër teg tànkam ma teggi sama bos wala mbër humilier ma ci làmb wala mbër duma ma wala ma xeex ak mbër man teggi sama loxo danga naan ma combat bii la mais nag heure bu ñu dékkee micro bu ñuy wax dañuy wax lu correct dañuy wax lu neex a dégg dañuy wax loo xamante ne koo ko dégloo ñaar mooy mu naam da nga koy mu jëriñ la wala nga dégg ko te ñaar yooyu la nit di def dégg la jëriñ wala nga dégg lu la reetaan loo mu fàtte loolu la naqari mais du ñu dégg micro mukk ñuy wax di ko man fii laa dëkk man bandi laa man dama am fit man non dama am fit wax fit moom ci liggéey liggéey rek ko mën a wane ñii dawal oto dama am fit dama am lii talibaa ngi nii ñii def leneen da dama man internet bi ma cee lii émission yaa ngi nii dama am fit mbër nga wane ko ci géew bi yàlla nag nag dimbaleegum nañu li nit ñi di xaar ci ñun dëgg pour ñu wan leen ko ci capacité ci biir géew suñu borom dimbalé guñ ñu tollu ci combat bu démé non mais ñi ngi ñaan yalla mu indi ñu ci lo rek lañu ñaan yalla parce que nit dina bëré carrière lu mat 30 combat bo xolé combat yi tax gaay yi gis jàmbaaram dëgg ci bénn lay tollu wala ci ñaar exemple la lay jox ama Sène buñ doon att ci digganteem ak Khadim Ndiaye numéro 1 bu njëkk ba indi ci digganteem ak Gribour Bordeaux Demba Diop bo tégon digganteem mu Khadim Ndiaye da nga nan ku ragal parce que pourtant loxo Khadim Ndiaye ko romb laal bët bi mu génn mu jul bëré ba biir mo Gris Bordeaux muy nacc bañuy taf kanam gi mu konne ne di wone jambar boo don at ñaari combat yi ban moko jaay lamb non lay fonctionner mais moy li ma la wax rek amna na xamne bo fay tol di expliquer ñi la xam mun nañ xam li ngay wax mais ñi la xamul mun nañ japp ne ki day sans balaa pour nit ñi gëm ko wala pour nit ñi ki wañaruñ loxo kenn pour ñu gëm ñun xam nañ li nekk si ñun. alors nga jógee également fi nga xamanteni ni États-Unis bu nga fa jógee ba légui ñi ngi doon xaar sa combat taxaw mais ñu combat mobile. yaa ngi am ay proposition wala yow yaa toog sa ruq am looy togg ñorul. waaw ñi ngi am ay proposition ñi ngi waxtaan ak promoteurs yi eh, ku ci mel ne Fallou njaay mu ngi ci parce que ñu ngi doon proposé ku mel ne Baye Mandione ñu ngi doon ku mel ne Nguer bu sax ñu ngi doon proposé ku mel ne ambulance bu kees mais loolu yëpp bi ñu ko proposé tamit benn réponse bi lañ ci amoon mooy promoteur yi ñoom ñëpp ku ci pare ñun pare nañ parce que ku ci mel ne ma Mandione waxuñu ko lenn pour bugg bëri ak mais kuy takk ngemb toll ci suñu génération am nga réew bu bëreeg moom ndax carrière bu fii ñu toll amul mbër moom ci mos a wan ca jom jàmbaar lay wane muy combat bu mu gañe muy combat bu mu perte bëreeg moom suñu réew la. bu ñu mayee chance mu jël. waaw ah, te ñi ñu fi lim ñëpp ay adversaire de taille lañ. adversaire de taille lañ adversaire yoo xam ne kuñ ci bëreel mu neex ku ci mel ne Baami Ndiol dañ naan mobile daa dégg rek mais kenn du moom ku mun a fecc la. ambiance ku mën ambiance lamb la Abdoulaye waa kenn du moom la sama mbokk la. bu nu bëree day neex. Hmm. te à travers adversaire yooyu da wax sànq lu am solo nga ni ba léegi tey amagoo combat bam te da nga da di nga ci wane tey la euh, askanu làmb nga wane ci sa bopp wane li nga capable réellement. waaw te à travers ñaar adversaire yooyu que ça soit ambulance wala Baye Mandione war nga ci mën a wane sa bopp ba gars yi xam lan mooy. xar kanam mébul réellement bu baax a baax a baax parce que boo xoolee image boobu ma lay wax noonu xaw nañu dal ci nattu ci ñaari bi ñu nag Tapha Leer mais liñ ci xaw a gën a wane dëgg benn bi ñu nak Kara doole la amna na me ci beure la terminé mais comme li nit ñi bëgg dëgg dëgg dëgg gaay yi suul yi ñu wéccio kur fañ no xeyna bu lamb yoy ñuy wax ni taxawé mu na né mais tamit na nit ñi baye xel na ñom ñepp ñu ci bëreel yépp yépp yépp yépp bo tegee sa tànk duñ ko fa xaru ñu fa xex bi dé gaay ñoy wax ni rek xeyna nak suñu borom mi ngi and ak ñom ñi ngi am ndam mais amagul ku ci dër tankam né ka ñu xex ñom bu leen nexé tamit ñun da nga yoru xeexu comme sa ak soq sama diggante ak sox bëri nañ ñaata minute wax ji li muy bëri yëpp li am ci làmb yëpp maa ko def man maa ko cokkaas pour mu réagir ñu xeex mu taxaw fi mu taxaw maa ko cokkaas cokkaas ko cokkaas ko ñëwul maa daw sonk sonk boo xam ne jotul mu bëre daan ma ci biir bëre parce que ñun duñ daanu ba pare taxaw di wax beneen façon kii boo xam ne dafa bëre daan ñu ci biir bëri parce que damaa daw sonk ko mu teggi tànkam kott sama poxotaan nooju mais boobu poids bi ma déparé di ñëw moo tax bi may nooju mënu moon taxaw ayil bi quoi waaw contour ram daan tamit noonu boo xoolee man maa dox ci kawam man maa dox ci kawam ba ci saaku yi daw song ko mu resu bal ma ñaari loxoom ñu jàppante mu daw di ma plaqué ma koy fàq dëgg ci saaku bi darxiis làmb ci Bébé Sèye que maa ngi dégg récemment euh, mbëru Grand Yoff fi ku ci nekk di ko tudd ba ci Fourier aussi am na ay wax yu mu waxoon ci moom Euh, bi ñu defee aussi suñu ay investigation daal di gëstu ñu xamal ñun tey benn bon volonté la boo te tey dafa ñëw pour jàppale tey les lutteurs de Grand Yoff en par yow mu nekk itam tey sa frère ah, ni woon dafa pare pour jàppale la ngeen ko tey man boo jàppalee su may rakk rek ñoom ñooy privilège bi man aussi li ci des moom euh, mun naa ko gérer ak yow yéwén googu nan nga amee idée boobu yéwén bi. waa c'est parce que ñun suñuy rakk dañuy bëri ñuy sonn si ñun di daj si ñun coono bu métti commence la par moom ci ñu lamb amul chance mu koy fekk fii parce que moom mi ngi féete Canada mais bu ñuy bëri du am jàmm fu muy liggéey day arrêté lu mu yor envoyé na ko mu toog benn période mu décidé ñëw pour assister benn quelque temps mais bi muy départ di ñëw man maa ko yëkkati woon bi mu ñëwee toog ñu waxtaan nag ma ne ko man sama kaa méttiwul parce que yaa ngi ci taxaw alhamdulilah sama papa seetaanuñu mais am naa ay rakk yoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw di daj coono yu métti te seen jàppale demeewul noonu mais boo taxawoo boo yëpp rek si man nga taxaw man amul sans ngay concentré wu ci man mais jappalel boy bu baax bo len jàppalee bu baax jàppale nga ah dip mo wax ko tamit batay tok diko di vraiment kep kou mako bolé lon loon nga ba ci man dama ma bër jërëjëf mi ngi taxaw boy lu man combat fourier bi ñu genn amul lu ci tajul ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi jëmaat ci préparation nan di faal dèjà sànq ñu ngi waxtaan mu ne ma amul lu ñuy xaar nañ ci nekkat xam mo lol diko di sant bu baax ci côté boobu di gëreum di sant suñu pap bu baax di sant suñu yaay xam nga ko wax ni loolu yëpp moom la parce tamit bu neexoon paa bi may yëngu ci làmb mu bàyyi ma ci mais keneen bu jógee di ci jël kiyam di ko ci def mënal bi ci dal mais buñ jógee entraînement tey fii salle bi mbëri duñ fi xaj dañu obligé ci suuf la ñuy dem fees dell teg suñuy ndekki paa bi fa lay ñëw mbalagan teg ñun mbëri ndekki ñu génn dem loolu yëpp moom la quoi ñu koy sant tamit bu baax ci loolu di sant suñu frère bébé di sant suñu taaw nag parce que taaw mooy papa xam di ko sant bu baax moom moo médecin tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax eh, jàpp na ci suñu lu bëree wax lépp ñu ngi koy bu baax. mais eh, ñu gis Fourrière làmb passé ni ko ko grand yu fa andee ni ñu ko ëmbee mobilisation bi jéggi dayoo te eh, waneen rek ñoom namm nañ yenn tàkkusaan yu mag yi tey grand yu mérité nañ am tàkkusaan fi ñëpp di am yeneen gox yi muy Guédiawaye muy Parcelles te loolu man comme ni ko waxee léegi war na a jaar ci yow. waaw bu Fourrière bëree ba tey tamit grand bi yëpp ñu ngi koy réclamé li fi nekk yow la ñuy xaar yow la ñuy xaar yow la ñuy xaar. mais li indi loolu mooy jàmbaar ji Fourrière wane te ñoom ñu xam ne lépp ci làmb si ñun la ko préparé mu wane jàmbaar nekk suñu rakk ñu yóbbu koy saat mu def lépp li mu war a def suñu borom ñëw ak ndogalam ñu nangu ko bu baax xam nga yee tàkkusaani grand di xaar tamit am nañ si yaakaar mooy ñi ngi xaar mobile bu baax te leer nañu nañ nañ nañ nañ mais lu ñuy xaar rek ñu ngi leen xaar li grand te xam nañ ne yàggatul dara dinañ dégg lu taxaw léegi léegi mais bu jotee ah xam ne yàlla mbir bi génn na de mu déggee séeréer nag yàlla mbir mooy borom dëkk bi wa mobile yow legui lan moy problème bi ak ñi nga xamanteni ñoy boy bébé jéeni mafia bi il paraît que yaa nangu sen moto d'après li sen mbër wax ah wa mais sen mbër xam mom mom moom côté boobu man bëgguma ci sax foosé au fond parce que bi mu waxé tak sam papa kay kayre seetaan ko dafa jël sama numéro wo ma téléphone direct sen encadrement écrit bi wo ma no way dama ma na ma boy bi wax na loo xamante ne nii kayre mi la yar xam na la bu baax ni yeeg ni yeeg mi man leen noo man aw ma problème boobu noonu comme loolu mu wax mais bi mu ko waxee sama papa Kayre daf ma woo téléphone ne ma amul problème man maa la woo bul ci wax bu la ci internet wooyee bul ci wax bu ci kenn wax moom mi ko waxoon dinañu waat internet yëpp ñu toog mu dindiwaat li mu wax moom sax parce que li mu wax amul te tegu ko fenn wax na ko nag ci coobare boobu wax na ko ci loo xamante ne nii ñi mu toogal ñoo ko wax moom parce que ñun ay mbër lañ làmb la ñuy tund lañ am nañ nag fu lay yóbbu suñu mbër bëri mu perte ñu gën dox ndànk dem ñibbi mais amuñu ñàkk fayda benn nit di ñu jaay lu nekkul parce que li ñuy jaay noonu noonu noonu noonu noonu ñun grossiste lañ si duñ si détail dañoo xam ne amul njëriñ ñu bakkook ñoom mais pour génn benn booy du ñu ñor di benn affaire wu ay lii wala ay laa non ko def. boo ko defee tamit loolu dafa xewoon ci làmb ji paas wala ci. waa xew na ci génn nañ buntu stade taxaw ay booy fekk ñu taxaw ñu génnee ay armes. Hmm. fekk man booy ma àndal ñëpp moto lañ yor ñi ngi gaare ci territoire bi di xaar ñëpp génn booy fekk moto bu taxaw ñu ne dañuy dajji direction bi pour yóbbu ko hmm. mais bu jotee pour ñu wax ci dinañ ci wax parce que ki doon dajji direction moto bi man maa ko dàq ji ba jàppal ko sama bopp mbër la bu am licence di bëri arène moo fekk moto booy taxaw mu sàcc ko mun nga xam turam non loolu daa jotagul pour ñu wax ci parce que suñu papa carrière daf ñu woo hmm. am lu ñu si ñaan te moom suñu papa la boo xamante ne ni suñu carrière lu mu gàtt gàtt am na lu bëri si ñun daf ko def si ñun muy man muy naan di faam parce que ku nekk xam na diggante ak la dëgër un ni meloon. ñu dégg la nga ni moto yow moto bi nga andi instant sax moo gën a seer day oto bi andi seen mbër loolu lan nga bëgg a que moom dafa toog ci télé mu ne mobile moo nangu suñuy moto jam suñuy ay booy ma ne ko man moto bi ma war bi may ñëw instant moo gën a seer oto bi mu war man maa manque moto man boo duggee suñu biir oto nii suñu biir kër nii six oto moo fi nekk six. ñun la yàlla nattu ñu bëgg affaire jeunesse di dawal ay moto nii nii nii boo yërndoo fii léegi ñetti oto ngi fii fii ñaar ngi fi benn ngi taxaw ci buntu kër gi du ndamu du lenn ñun ñi ngi sant yàlla bu baax ay moto ay yii nii nii ñun la yàlla nattu ñu bëgg ko di ko dawal mais wax dëgg yàlla ñàkkuñu lu ñu war bay sàcc moto vraiment. kon nga Amérique donc récemment ñu dégg benn champion. def lu nek ci lit simple bi également muy top yonam muy reug reug mbir mom fim mu amerique Amérique bëriwul sax ay Sénégal yu mu fa don gis est ce que yow nga dox ba ak mom wala. mais mom New York la nekkoon te New York la sana yëpp nek <laughs> kon lim wax dang koy weddi suma ma déggee wa mais mom New York la nekkoon New York la sana yëpp nek ba pare en plus aduna bi amul foy génn fu amul Sénégalais amul foy génn fu bëriwul Sénégalais Sénégalais yaa ngi fépp ay jambar lañ def fo mën dem mën nañu dem fu ko yeah don nga dox kon ba ak mom Amérique bi boo bëggee dégg-dégg ñëpp ay gisante mbër yi fa nekk ñëpp ay gisante. bu nekk New York ñëpp dañuy gisante. waxuma kii bàyyi kii dañ ñëpp dañuy gisante. mais boo doxoon bu day ak moom doon ngeen saafoonte wala amoo leen relation yi. non amuñu relation buy indi ay taxaw di expliquer mais tamit sequñu dara lu ñaaw loo xamante ni war na mën a tax buñ gisante duñ ñëwante. Eh, parce que dañ doon gisante esaat mu nuyu ma ma nuyu ko jàmm lañ seq quoi. am na solo léegi ban message ngay lancé tey ci coronavirus bi lëmbee réew mi avant ñu terminer. waaw coronavirus bi xanaa di ñaan suñu borom mi nga xamante ne mooy tege nattu te moo ko wàccee ci àdduna xëy na pour doomu aadama yi am nañ ci jàngat lu bëri moom mi ko wàccee mu teggil ñu ko ah te dégguñ ci kaabu sonal sénégalais loolu mu kon neen noonu ba teggee ko ci àdduna bi fépp fépp fépp fépp ah di ñaan tamit sénégalais yi ñu am benn dégg gi rek mais bu ñu amee dégg ba pare tamit ñu am topp gi parce que ñun am nañ dégg mais dañoo xaw a ànd ak dëgër boobu tuuti mais nañ am topp gi parce que tamit luy lore la luy lore la des fois nga fekk nit sax mu ñëw di la nuyu nga xaw a am noo éviter mu jékki-jékki ne la même bu lii jeexee na loolu continuer sénégalais moo bëgg affaire jàmbaar jàmbaar lu mais bakkan moom amul jàmbaar amul lii amul laa loo ci mën a moytu rek da koy moytu bu ko kenn jàppee lu ñaaw bu ko kenn jàppee lu lii parce que ñun ay jullit lañ salaamaaleykum mooy li gën a tegu ci ñun am na solo ñu koy jaajëfal bu baax di ko gërëm nekkoon mobile le grand l' espoir des grands Yofois comme ni may faral di ko waxee mu doon une waxtaan bu am solo une discussion pleine d' enseignement boo xam te il s' exprimé à cœur ouvert donc wax ci aussi loo xam te ne tey euh, sori woon na ci moom revenir ci yenn fee ci carrière am avenir am ci arène bi mu doon waxtaan bu am solo di gërëm aussi tous les fidèles internautes de Guédiawaye Info TV en par waa France grand Boubacara ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm yàlla musal leen Euh, grand Ousseynou Dia di leen ziar di leen ñaanal jàmm aussi di ziar aussi mon ami Abdoulahad depuis Brésil tous les fidèles internautes de Guédiawaye Info TV ñu leen di ziar di ziar aussi l'incontournable Bécaye Koundoul mais à ñuy lancer aussi benn message muy tey ci coronavirus bi comme ni mu ko waxee rek parce que heure bi dafa toll foo xamante ni l'heure est grave comme j'ai l'habitude de le dire dañu war respecter nga xamante ni mooy les mesures de prévention waaw parce que nit ki da koy jox loxo sax mu fonte da koy moytu wala demeewul noonu mais tey dañ doog ci jamono joo xamante ni euh, dañ toll ci tey l'heure est à la synergie des actions pour ñu mën a combattre li nga xamante ni mooy maladie bi xale yi bu fekkente ne tey dañ président dafa jël ndogal pour ñu daal di toog noppaliku c'est pour les protéger mais da nga gis ay xale yom dañ leen bàyyi ñu nekk ci mbedd mi di dem place di dajeeg ñoom parce que à chaque fois xale yi en plus que ñuy génn rek ils sont exposés au virus loolu ñu bàyyi ci xel bu baax di leen gërëm bu baax di leen sant di leen gërëm merci